góor day gaaw baax bi ni famille ni ñun xale yi kontaan nañu jaarama Souleymane Awala Sénégal seetaan leen 2STV kaay cover émission bu neex émission bu neex blogu nettali ay wayu neex kaay cover seetaan 2STV lay amee kay koobo jarama wow wow wow wow oh wow wow wow man tey candidat yi ban son laal leen war a proposer pourtant semaine passée niveau bi dafa yéeg kon dañu war a gën a élever niveau bi est-ce que du am naa idée c'est bon. ça va maa ngi gudd. yëpp jàpp naa si kenn si jàmm bu baax. sant. xam laa bëgg. waaw. daf daf juuxul dara waxal ma benn vocalise. benn vocalise loolu da nga bëgg. waaw. Ah. vacances yi ñëw na école yi tëj na. ok ok ok léegi léegi daf ko baal a ah, waaru tet ma xool yi ñëw na école pourquoi moment bi ma ñëw si mbay directement euh, parce que ñoom ñooy deux candidats yu ñu choisir pour ñu def son bi donc son bi du son bu yomb benn donc il faut que ma xam déjà gamme bi musique bi nekk ba xam booy mën nañ fa woy parce que c'est la première fois ñu dugg studio et tout donc loolu jar bàyyi xel la moo tax bëggoon naa xam ku si nekk ban tonalité nga nekk sa voix ba xam di nga mën a am voix daju wala di mën a am voix fali ou pas donc moo tax ma dem attaque directement si si Mbaye ma demee si Mbaye Diop bi mu woyee automatiquement dama xam ni kii war na mën a interpréter son bi nu mu demee. comme laa bëgg dafa Suzanne bon man maa choisir loolu quoi ñëw bett leen parce que woykat boo bett rek boo bëggee xam waykat dëgg bett ko ñu ko neel der donc dama ko fekk mu toog ay xaritam ma ñëw ñu ko bett ko parce que loolu bëggoon naa xam intention voix naturelle am nan lay mel par rapport ak li mu ko bëgg a wayloo mais ba mu woyee nice faut nga defal booy ay son yu yomb. waaw ah, mais dama yow. waaw déglu ma rek. waaw damay wax sama avis munoo wax ba du ma wax déglu ma ma wax soo wax ma lay déglu doo ma déglu. waaw li la. bu nekkee sa domaine damay wax ma ñoo fi nekk. déglu bu baax li ma lay wax waaw déglu ma déglu ma li ma lay wax. déglu ma bu ñu yegg fii quoi nañ dañ waxtaan nañ waxtaan booy yi amuñu niveau dugguñu studio defal leen son yu yomb c'est ça. waaw mais booy man ma mën a woyloo booy fii nii. boo leen mënee woyloo loolu yàgg ah, studio te amuñu temps booy. léegi nañ xaw loolu booy kon déglu ma yow déglu ma si man ma du ñu da ngay totoog sax lan la booy ñu ngi doog commencé booy booy wér sama bi laissez ah eh booy wu ma xaaral xaaral booy xaaral waaw waaw waaw xaaral waaw xaaral booy booy dégg nga waaw dégg nga waaw dama naan dama naan dégg ma dégg ma def leen nànk waaw toog leen toog leen toog toogal toogal toogal loolu toogal looy def nii eh eh eh looy def nii da nga dof loo xaaral Serigne Touba booy booy jàpp si rek teel ma caméra ngir yàlla ngir yàlla. teel teel ma caméra waaw léegi bu leen bu leen bu leen. waaw léegi gis nga yàq fayda yi mooy yàq. Bessé Jules mais booy yow tamit ñun ñu aventure mi ngi doog a tàmbali ay booy ndaw ñu jël leen fii ngeen nekk fii di yóbbu am nañu ay dëkkaale à côté. mais lu ma tax doo ci génn. booy yaa ma sa animation. mais yow yaa ma dégg kay. mais Bessé sa sa baa yow. waaye gël fi nga naan ma yaa ma sa animation. waru sa ci loolu. demal nga seere li mais est-ce qu'on peut parler de la musique sans parler de l'animation. est-ce que déggoo ma la wax de. waaw d'accord si li ñuy wax nii maak moom suñu domaine génn ci dañ ko gérer après lu ñuy wax ak wax ko yow. man de xam naa ko. jàppal madame Ndiaye parce a yéen ñaa ñi ay dox dëgg ngeen. ñu fay rek. waaw yow xam nga maa ci bon loolu naa réglé problème yow laa wax soo bii boo ko defal boo. dañu may expliqué la dañu may expliqué la léegi comme noonu la def loolu moo section du man personnellement xulóo ba ma ko déggee damaa tiitoon parce que xaw ma woon lii quoi Jules ak Bess si télé rek laa leen daan gis ñu daan def affaire yu nice mais suñu première fois ñu ñëw si kër gi dégg coow lii nii ça m'a choqué quoi xaar woon lii quoi mais waxtaan bi xulóo bi fii nii yi kii woon na quoi mu ngi woon ci kaw niveau bi mu ngi woon ci kaw a kaw man damaa tiitoon tiitoon naa loolu sax bu ma déggee saa man xaw ma woon ba xam xaw ma woon Jules ak Best daan àgg foofu quoi xaw ma ko woon comme que candidat laa nag man je préfère rester neutre. non sincèrement j'allais prendre ma valise et repartir ndax quand même xaw ma lii woo naa madame Ndiaye su ma ko jotoon dama naan ko damay jël sama valise damay dem non mënuñ ñëw ci kër di waxtaan ak ñoom. mais la moindre des choses ñu jox ma respect déglu ma quand mais ils l'ont pas fait mais bi ma conclure xam ni lii débat beeg détail bi yëpp ci li mu posé mooy liggéey ci laa comprendre peut-être mën na am mais bu doon leneen la non du ma fi toog vraiment. bon Jules bon yàgg nañ am këréel yu mel nii quoi studio c'est pas la première fois donc parfois man ma koy blâmer si benn côté quoi mooy parfois du comprendre sama idée. xaw man maa ni may joxe sama idée moo moo leerul xaw ma daal mais euh, du comprendre sama idée du ko waxee ma àggale sax day fël sama gémmiñ quoi ni ma non non non non on ça parce que day yërëm booy bi day booy yi day am yërmande ba day foog ni te en fait plus de dix ans ko métier mais vécu expérience la donc man xam naa booy fu ñu war a mën a way ak fu ñu mënta way mais je la dama koy comprendre quoi parce que xam ni dafa bëgg moom tamit mu baax rek mais maam ngi moom nii la ñu mel ah, nii la ñuy dund chaque instant du yomb. te dinaa ko waaye. bon tey boo gisee ma am réaction bi man mi sax xaaruma ko woon sama bopp mais tamit des fois day baax tuuti ñuy bàyyi xel xale yi te xam naa best xam naa best day bëgg tout le temps mu parfait mais xale yi xamuñu amaguñ expérience ci studio yàgg nañ nag am problème yu mel nii chaque jour dafa naan sa yërmaan na ngay topp sa xol mais du loolu dafa am liggéey fu muy toll foo xamante ni da ngay da bëgg mu mu mu xaw a oyof tuuti ci booy. defal leen ay son yoo xamante ni du ñu fi yàgg en plus parce que dañuy jouer ak temps bi loolu moo tax tey ma pétard mais nag ñi lañ dëkkee man ak moom très sincèrement du chaque jour la ñuy d' te bu ñu d' accord man moom day metti dañuy egg boo xamante ni tey tane na xam nga mais vraiment lii tey xaw na ma metti quoi parce que bëgguma mu mu demee nii booy dama bëgg tout le temps bu ñuy woy mu nekk loo xamante ni dafay yomb et que mu gaaw fi quoi ñu gën a ci expérience ba pare bañ am trac boobu noonu day tax sax ñu gën a mën a concentré ci lu ñuy def loolu la façon maa ngi raisonné sama bopp. man tamit mu ngi raisonné ndax yow. Ami moi aussi j'adore. ça m'a trop frappé. c'est mes chouchous. je pense pas que je vais mettre une blouse aujourd'hui j'ai envie de mettre celle-là mais franchement il fait trop chaud. pourquoi da nga bëgg a def sa plat bi kese. oui ça passe. <laughs> on est en été. maquillé wul. tu peux la coller genre. je suis assez belle comme ça. non attends une seconde tu tu peux la coller. tu tu attrapes nii. nga takk ko comme j'avais fait pour ma mariage ko. Comme ça, ça va pas te gêner. Ok. Elle est où la, la perruque rouge La coupe carrée rouge Quelle coupe carrée rouge La carrée La coupe. Pourquoi tu rigoles qui souffle bizarrement comme ça Parce que mon l'a reçu, mon l'a reçu, ça m'a donné bouquet, boucle B. Je sais pas, non, je l'ai pas amené. Tu l'as pas quoi Je l'ai pas amené. Là, <laughs> qu'est-ce que coupe carrée rouge Je vais m'en donner le premier d'aller. tu l'as pas amené sérieusement Sérieusement, je l'ai Je rigole pas, elle est damay blesse sérieusement, moom laa war a sol nii. Mais pourquoi tu m'attaques Non mais attends, je t'ai demandé d'amener la perruque. Racky, tu me touches pas. Tu me touches pas. Tu as touché la perruque, tu m'as pas dit de l'amener. Je, regarde je suis ma pas obligée de tout le temps je regarde ma valise. Si j'ai pas vu la feuille, voilà, ça va toucher pour toi. Parce que je peux pas comprendre. Yo, mon mangue, j'ai valise vidéo. J'ai fait sortir ma feuille. Mais la double me dit valise, tu l'as pas rendu. Raki, ah, tu me l'as pas dit, tu l'as dit dans ta tête alors. Me fais pas chier. Attends, tu penses que je sais pas pourquoi t'as Raki, là, t'es obtenu. Je t'ai dit de prendre la feuille. Pourquoi tu ramenes pour moi Ferme ta gueule. Je ne ferme pas ma gueule. Raki, il nous a pire. Raki, il nous a pire. Je fais, je fais, je fais. Il nous a pire, Raki. Il nous a pire, c'est man ci joue pas mais rek lii la la yow. yaa ñàkk fayda yow. yaa ma gën a ñàkk fayda yow. kii ñoom ñu maa ngi dëkk Dakar di range sama benn di range lépp. mara ko ñu jël perruque bi yow perruque bi nga yor ma nekk parler avec une personne ma nekk parler avec une personne. eh déglu. tu m'écoutes tu m'écoutes. tu m'écoutes. sama en fait li taxoon ma énervé wu oh. c'est parce que c'est pas la première fois mu ma koy def yàgg nañu ànd voyage yàgg nañ bokk liggéey ma dénk ko dara mu bàyyi ko sama kër donc sama m'a fait trop mal le fait que ma programme sol dara elle a laissé la perruque coupe carrée rouge à Dakar ça m'a ça m'a parce que man dama bëgg di aligner li may sol di. organisée, mais elle est très désordonnée. Elle est très très désordonnée et moi j'aime pas du tout ça parce que moi je suis comme ça. Donc munuma nek nit ku désordonné ba paré di and ak ku désordonné. Ça m'a fait trop mal. Donc lolo waral sama yaram tang ñu jàppante et puis c'est pas la première fois ñu jàppante parce que ñoo dëkk ñoy fanaan ñoy defandoo lépp. Tout le temps dañuy joté li ñuy jotee sax moo ëpp li ñuy euh, juboo. Comme ni ñuy wax rek ànd and moo yombul. Donc euh, c'est ça. Franchement, je déteste le manque de respect. Mais encore plus quand on me crie dessus ou qu'on me manque de respect devant les gens. Raki, waxumane dama wara indi perruque bi. Donc pourquoi elle me fatigue avec ça en fait J'arrive pas à comprendre. Tu ne m'as pas dit d'amener la perruque. Tu m'as demandé où est la perruque. Elle m'a dit la perruque est là. Ñu xool perruque bi mais elle l'a laissée là-bas. Donc à quel moment c'est moi qui devais amener la perruque non en fait xuloo bi mënoon na gën a sori xëcca moo tax ma calmé wu te su dul woon loolu moom ak xëcca laay boole si biir ñu xeex ñun ñun ñett ñëpp parce que sincèrement j'étais trop énervée j'étais beaucoup trop énervée euh, pour une chose minime comme ça elle amène un énorme problème pour rien en fait non sérieusement je ne sais même pas là où commencer mais Pape Yaag MP tey ngeen ma wan ni yéen seen manque de professionnalisme maa ngi lay wax benn moment wàcceel caméra bi mais wàcce ko parce que am na yoo xamante ne waruñu ko jàllale ay xale ay mag ku nekk nii toog duñu seetaan te ñii fi ñëw nii tey suñu naaw leen parce que suñu ay rakk lañ mais xoolal ñee sànq ma jég saa yéeg ci kaw gis rek ak kiraa comme xaj ak wundu en plus may ñëw di intervenir ñoom ñaar kenn dégluwuma mais bu ma fi nangu mënul am respect fii ma jóge dem sama yoon parce que xaw ma lii lan la. comme original bi guitare bi moo ci nekk. Mm. lay defal ay napp. ci la ñëwee ah. fii la. 1 2 3 4. mooy originalité morceau bi fële boo xoolee parce que ni nga laa la comprendre nga rumba congolaise ñoom seen musique base bi guitare la genre guitare acoustique boobu ngay dégg suuf ñoom Papa Wemba ñu ñoom ñëpp bon base bi loolu lay nekku quoi donc il faut que ñun ñu def base bi base bi d'abord mooy guitare bi mooy base bi il faut ñu teg guitare bi mu nekk base bi ba pare ñu am ningala bi ñu am originalité bi ñu am vrai morceau bi léegi nag rythme lañuy ñuy changer rythme fait rythme genre arène bi un peu arène bi pop la woon donc fii dañ ko indi mbalax mu bees si nopp mu nekk leneen aussi yéen tamit boo di woy da ngeen di woy leneen parce que rythme bi day changé harmonie yi mën na bañ a changé carrément mais dina am tuuti modification yi am ci terminaison à la fin des harmonies comme par exemple suñ defee nii wayal ma fii am ah. bi daal avant tout rythme bi xoolal rythme bi fa mën a batterie bi foofu la ne eh? gë gë gë gë gë gë gë rythme bi boo ko bëggee xam ne lu ñu tuddee mesure booy way ci musique dafa am lu ñu tuddee mesure mesure mooy maanaam mën naa ko wax mooy la ñu limité ci son bi maanaam ñu la wayal quatre mesures pour nga xam lan muy mesure c'est très simple lu banal la bu bi di daw yow déjà amal tempo bi soo amee tempo bi ba pare nii ngay compter mesure mesure jàpp leen ko mesure ni lañ koy compter ak rythme bu mu mënti doon boo xasee ba am rythme nii la set nga koy compter. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 deux mesures. 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 4. 1 2 3 4 bu dee rythme bu gaaw bu dee bu dee 1 2 3 4 5 6 7 1 2 rythme bi lu mu gën a gaaw. son bi mesure yi day gën a gaaw mais même tempo lañ ko tempo bi ngay adapté wu si rythme son bi ngay adapté wu di ko compter par sept loolu moo lay jox benn mesure deux trois ba quatre mesures bu la neexee huit mesures ça dépend loolu lañ tuddee mesure donc son bi comme mbalax la rythme am gaawul rythme bu def nii la am comme genre style bee lañ adopté donc mbalax bii lañ ci teg mbalax bii comme buy daw bi mbalax bi pax comme nii day nekk fii ba tey boo ci defee Madiba boo koy coloré am nañ Sénégal am nañ balax léegi gis nga acca nice mais xoolal muy cool mais faaw mu kantaay comprendre nga. Naya Bella Mama. waaw lu stop. Bella Mama waaw. voilà la bien loo ko def. la bien ah. ok ñu demaat acca. nice mi ngi ci Gambie Gambie musique bi la min la majeur la la majeur bon note ak dam bokkul maanaam note mooy do ré mi fa la si do léegi l' ensemble des notes qui composent le maanaam bu ñu xoolee morceau bi ni par exemple do la fa la ak ak mi exemple exemple laa joxe note yooyu noonu yëpp boo ko boolee mooy gamme donc nga am musique bi si la la nekk si lan lañ ko joué la majeure donc moo tax am nga possibilité woyee basse mais am nga possibilité tamit woyee ci kaw en en première dama bëgg je vais chanter nga def ko basse si suuf xam nga sa voix am nga basse bi quoi kontaan nga ah mm-hmm. na foofu ah? Mm-hmm. Yeah. Hey, voilà la pierre, je vais chanter pour te soigner. Je vais chanter pour te Adel. soigner. Oh là là, le bébé là là, on stop n'est-ce pas? Attendez ah, là, d'après sous. Je vais chanter pour te soigner. Que tu devrais dormir bébé, pouvoir concevoir un moment de bébé. Ah. Le bébé. tempo bi rek nay cantaise rythme bi ko bàyyi nay nekk ci yow boo koy woy nay nekk ci yow parce que woy lépp nga sa corps sa loxo sa lépp nga nekk ci quoi il ne ci biir morceau bi ah ñu demande aja bu jeexee rek nga dem aja elle me dit de faire dormir bébé faire bi ñu demaat moteur acca Elle me dit de faire dormir bébé pouvoir concevoir un autre bébé. ok léegi da ngay def. ci kaw. notre bébé. kese nga jël. deuxième bi nga def ko nii. bébé. bébé. ok. Je veux chanter un peu de foyer. Dans mes bébés, un autre bébé. Ah, un autre bébé. Yeah, foofu la nekk Birame. Je veux changer un peu de foyer. Elle me dit deux fois. Dans mes bébés, un autre bébé. Nice. ñu déglu ko. ou de soigner, je vais changer de soigner. Dans mes bébés, à notre bébé, continuez. aigu la aigu mën na ko coloré basse moo nekk général bi. Mhm. yaa ngi dégg aigu bi nekk suuf day coloré juste quoi dañ koy wàññi ci suuf. mais bu ñu ko wàññi suuf beneen couleur nga am couleur bi li lay doon. peau de soyer je vais changer la peau de soyer outil de faire dormir bébé pouvoir concevoir un autre bébé et on s'y fait mal loolu la quoi. waaw. nice dafa refrain bi. te mooy naa ñu dem ah. acca léegi dinañu bi mu ngi fii. yaa ngi dégg mais bu ñu duggee naayee rek refrain rek na nekk lëmbal ambiance naayee te mu dëgg mu dëgg dëgg dëgg dëgg mu nekk ndaga vrai quoi nekk lëmbal quoi lëmbal ah parce que ndax lay nekk mbalax bi a ah. vraiment aja pour mu nekk loolu il faudra que batterie bi day changer dañ koy def rythme bi nii gëgëg gëgëg gëgëg gëgëg gëgëg mbalax bi nekk fan la ndax day daw village ba léegi da ciy nekk. Marimba moo koy def mbalax nag. waaw da ngay gis ni ñaari nit du bokk couple bu ñu ko defee bu ñu duggee rek dañuy enchaîner def ko lëmbal ah. acca ñu dem si defal ma lii rek lii bu nee nii. naayoo. di dem ah. acca. naayoo. E, après nga defal ma lii kese. naayoo. li nga def nii moo tudd Ceese. waaye boo ko waaye ba pare boo bëggee mu naay si kër yi da ngay contrer mooy Ceese luy contrer rek Ceese lay nekk. naaye naaye o oh. mooy principal bi nga def naaye naaye o oh. leneen la naaye naaye o oh. leneen la bu la neexee nga ne naaye na na naaye o naaye o loolu beneen càcc la bu la neexee naaye naaye naaye o naaye naeo naeo naeo yëpp ay kii yu bokkul mu ñu tuddee contraire day chercher quoi donc boo ko defee ak un tout dina la jox fii Nice. Nice. Léegi j'ai pris l'initiative si biir son bi moo tax ma ne la wooy ci gaam boo maîtriser gaam tu peux prendre beaucoup de morceaux yu bokk gaam teg ko ci benn morceau moo waral ngay gis benn waykat di way live jël morceau keneen bokk la moom accord mu teg ko parce que si gaam bi lay woy parce que ñaari morceau yi ñoo bokk gaam day mën a dem te morceau boo ko dégloo guitare bi su ma ko joxee dafa may jox la vie est belle Papa Wemba oh la amorosa amorosa oh la vie est belle n'est-ce pas jàpp nga parole mm-hmm. kii couple bi ngay duggee ñu dagg ko ñëw si kër la vie est belle yow bu dóor question amoureuse yi ah. mm-hmm. donc dañuy am deux sons ci benn musique am nañ daju ak Fally Ipupa donc dañuy jël morceau la vie est belle bu Papa Wemba teg ko si morceau bi ñu am leneen dañuy am lu riche ah te ba tey génnuñu Congo ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si rumba congolaise bi ba tey quoi ba pare ñu jël rumba congolaise indi ko ci mbala c'est une première il faut que ñu oser def ko donc on va démarrer bu refrain bi jeex nga jël ko. non le travail non. Euh, début couplet bi la woon. travailler. prenez-en la peine. prenez-en la peine waay ko. travailler prenez-en la peine. C'est le fort qui manque le moins, napetali bangal. Fille, go right there. I said, do that. Papa, where ma? No. Papa est bonné dans la peine, c'est le fort qui manque le moins, napetali bangal. Nice. Les double curry. Oh, la vie est belle. Tu l'aimes, hein? bon session studio bi tey neexoon na bon son bi ñu jox tamit neex na ma torop bëgg naa ko et mais ni ko pour man dañ koy way comme ni ko daju wayee mais bon ni ko best indee si rythme mbalax bi xawoon naa jaxasoo tuuti mais bon ça va quoi. léegi la vie est belle bu njëkk bi ngay bàyyi. oh la vie est belle nga dugg si question. amoroso amoroso amoroso amoroso deuxième ñaari si kaw benn bi si suuf ñu dem ah jox la kër yi ah. acca baax na ci yow nobody but I have a letter to go. I'm what I saw. Eu coloco a pessoa no e-mail, lá, além de waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna man na Suzanne dëkk Fadia ma nekk candidate ci concours Kay Cover képp ku ma bëgg a mën nga woote ci numéro bi 88 628 22 33 après nga bës 4. salaamaaleykum àdduna maa ngi leen di nuyu man la Mbaye Diop nekk candidat ci Kay Cover ku mu bëgg a voter da ngay woote ci 88 628 22 33 nga bës 1. Alors, nous voilà. Je sais comment ça a été difficile cette journée. Ennuyant en même temps. Blabla, blabla de, de ce côté-ci, blabla de ce côté-là. Vraiment, Rakita, j'ai pas, j'ai pas vraiment adoré quoi. Surtout ta réaction. Maman, il m'a dit, dégoule. Hein? Comme si, man, je suis pas, je suis pas ton frère en fait. Tu n'as jamais été comme ça avec en plus de ça ma wàcc ci suuf je parle avec Bess je parle avec Jules ñoom ñaar tamit mel na ay xale yu ndaw kenn nangu ma ci déglu dem na ba Bess di ma wax je sais pas nan ma yow musique lan moo ci yoonu animation mais je lui ai fait comprendre que musique ak animation bu àndul lan mooy ànd sama ko loolu ko gën a daaj je t'assure xoolal depuis ce matin yow gisoo ma dama toog sama kaw rek nekk ci sama bopp. vraiment man moom moom moom man dama côté. je suis je m'excuse ah je euh, dama lay jégal di jégalu ñëpp parce que c'est le stress mën naa ni parce que xam nga boo stressé sa xol day xat lu ndaw rek mën mën mën na tax nga mer man man ak Kira nii lañ dëkkee yow xam nga ci dara donc euh, peut-être dañu waroon joxe le bon exemple vu que dañu indi ay xale fii ñu nekk ak ñoom ci villa bi on devait ça devait pas se passer donc ce qui est fait fait ñoo ngi jégalu ñoo ngi jégalu. te man li ma si gën a métti mooy erreur bi yëpp. mooy que tey tournage waroon na am ñii ñii ñii ñoom quoi MP Paris mais au moment où ñuy def yenn fee yi nee naa leen arrêté leen mais il nous qu'à arrêter. mais Richard telle c'est ce qui se passe dans la villa. mais am na yoo xam ne mënoo ko wane sénégalais yi ñu ngi lay seetaan am na ci ñoo xamante ni ils vont jamais comprendre. mais c'est vrai qu'ils ne vont jamais comprendre mais suñu xalaatee xam ne ay doomu aadama lañ dañuy mer comme dañuy bég ils vont comprendre. yàlla bu ma gaaw a fekkeewaat seen i mer parce que man ci seen i mer mer naa ci te jusqu'à présent wàccagu ma de. lu leer laa wax sànq damay dem la gaañ yow muy kira. papier ma jox gaz ak ak ak ak MP. non moo la def loolu man yooyu du ma ko def. li ma metti tey li ma tey ci mais waxuma loolu waxuma ci ci nañ bàyyi loolu loolu loolu buñ ciy wax sax damay a rus. Hmm, mais xale yi tey dugg nañ studio. dama ko yëg je ma ko de xaw ma ci dara kana kana way Mbaye way na. Hmm. Suzanne way na. Suzanne ak Mbaye. Suzanne ak mbay def nañ jiw bu doy waar mais xicha bi dañoo tukki de. Hmm. xale yi woyuñu woy sénégalais. ci fan lañ woyoo. woy nañu woy daju. non ça va pas être non ça va pas être facile. Fally Poupa non non ça va pas être facile. maa ñëw. moi je du côté de Jules de. xoolal fin bi papa Wemba lañ ci duggal. kan moo def loolu laa lay wax nii. mais est-ce bien chanté. non xale ay ndaanaan lañ ay ndaanaan lañ xale dañ ci génn carrément cover bi ah. bis bu dajju dégloo son bi hmm. mbaa fali bu baax non dañ koy posté lii man maa la ko wax kon ñaari foofu nag loolu waral coow best ak jur <laughs> loolu ma rek mais maa xam nga ni jur bu dégloo son yi rus looy wax <laughs> mais xam nga musique daa génn de fekkeewul kii bi. xam nga musique day apaisé. fekkeewul enregistrement bi xam nga musique day apaisé. comme que sama xol neexul fi mu ne nii. waaw faaw ma seetaan clip. nañ ma nañ ñu may clip bi. mais avant ñu koy seetaan. waaw j'aimerais que seen mbokk. seen i xarit seen i am di jàmm nañ leen jàppale. parce que les votes également ça compte. c'est naa rek dégg booy di joxe seen numéro mais vu que j'étais vraiment énervé j'ai pas pu vraiment vérifier bu yan mooy exact mais dégg naa numéro 1 ak 4 nañ leen jàppale ñoom tam. parce que ci lañ bokk ba pare ñu woote ci serveur waaw waaw waaw surtout ñu woote ba pare aussi euh, final bi Richard c'est très important ñu duy seen i ay cartes. ñu mm. supporter seen i ay cartes. boobu dara <laughs> yow ah, da nga soof nag. da koy jàppale xam nga wane nga ni depuis le début moom nga faral. Ah, bu ma dugal moom nga faral. du ma dugal. nee nga ndar-ndar yi ñoo koy jël. parce que je suis sans Louga. moo ak kii ki dëkk Louga keneen ki kooku enregistré gul. yooyu yëpp ci la bokk. waaw nee nga ñooñu nga faral nag man nag ñeneen ñi dama leen di jàppale. man xëcc mosuma ma fu mu far. mi ngi may jaxasee ak téléspectateurs yi mbokku artistes dafa bëgg apaiser sama tension moo tax mu bëgg ma jaxasee man ñoom ñëpp ñoo yem au même pied d'égalité ci bët yi ma leen di xool. c'est mes frères non déglu ma da nga bëgg xam naa la da nga ma doon indil ay kuy ñëw da nga xam ni faruma kenn dama di ndar ndar rek mooy ndar ndar ñu bokk ndar war naa bu ñëwee ma ne ko yow ndar ndar nga mu ne ma ma kontaan sama xol set mais ki war a gañe mooy gañe mais loolu sax loolu waru ko def lan mun naa ko yaay jël ndam li ci lu ñu jógee mënuñu accéléré leneen jul de mu koy waxee ay de ba suturaal ko non non ba am mais est dafa génn ba fekkeewul enregistrement yi xam dem laa koy fekk. mais nañ ko neexalee nag. alaay su xarit la <laughs> xarit bu def loolu. day ñaaw de. <laughs> faire dormir bébé, pouvoir concevoir un autre bébé. Et quand il fait noir, faut piloter. J'ai permis de soir pour piloter. Et c'est comment faire. Notre port n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Je suis pour me sentir près de toi.